am genn kàddu gu yuuxu ne ana koy capp ci sama kaw pom bi mu daldi tiit ne ko man mii la mbaw bu magaale bi